mbokki taalibe yi ñu tëj ci xasida ak fuusti ci yenn ci njariñ yi fuusti daa bokk ci njariñ yi boo koy jàng sëriñ bi dafay dajale mboolem jikko yu baax yi defal la ko looy gën di dem di yëg ne sëñ bee ngi dindi nag ay jikko yu ñu soppul ci ci yow di la defal ay jikko yu ñu taamu ci ci ci ak taalibe ndax da ngay gën di dem ne ah man de damaa soxoroon léegi de daa mel ni damaa baax de te dox ba yàgg ne akama iññaa noonu waaye léegi waa nu mu demee nii daa mel ni daa dem de ngay gën di dem daa mel ni daa mel ni <laughs> daa mel ni daa mel ni ba dem ba yëg ci sa bopp ne yàlla dimbali na la nag xasida ak fuusti day maye loolu daa bokk ci njëriñal xasida ak fuusti boo ko dee jàng da lay dimbali ci gore sa diggante ak sëriñ bi ndax alxuraan jikko lay taggee yonent sallallahu alayhi wasallam jikko la ko taggee sëriñ naa Mariam mii ñu doon exposé jikko la ko alquran taggee sëriñ bi jikko la ko taggee ci xasida gii di fuusti donc jikko yooyu mu yor boo dee jàng xasida gi day dem ba day mel ni sëñ bi da lay xëccaale la ci yenn jikko yi ngay yore maanaam mu defal la ko ci ndimbalam xasida gii da koy def moo tax soxna yi ñëpp ci war a gën a góor góorlu rawatina ñun soxna yi ñu gën cee taxaw rek bari liñ koy jàng bu baax boo ko dee jàng li gën a neex mooy sunu borom da lay béggee ndax jikko yi bu la ko xasee maas nga yor jikko yooyu doon taalibe di ko liggéeyal ah da lay ndax sëñ bi wax na ko nee na képp koo xamante ne nii am nga tuuti ci ragal yàlla Mariam mi yor borom jikko yi maanaam danga koy bëggee dangay bëgg ba dangay ree ndax jikko yi nga xam ne yore na ko nee na kon ku am tuuti ci yàlla dangay bëgg ci borom jikko yooyu moo tax alxuraan ba mu koy tagg shakara rabbuna al karim chef ni ki sukuran la yeri. sunu borom dako tag sant ko sant go xamne do am fu mu yam ba faw la motax bokay jang da ngay bari xewal ala koy wacce bokay jang da ngay bari xewal muno umu muk muno teju muk ci bo saxale di jang fusti ndax kero yonent yàlla insa bu mu ñewé ci señ bi wax ak mom la mu doon sàkku señ bi defal ko ko duma ko del ibnuki na la mayru ne ko sa dom ji la mu doon am gannaaw ba ñu tëjee seen jotaay boobu keroog at moom mu foofu xéwal ga dafa baree baree baree baree bari ba foo ko natt rek weesu na ko xasida gi kon dara gënu koo gaaw ci ubbi ay buntu xéwal boo ko saxalee di ko jàng kon xasida googu mooy gin doon exposé muy fuusti te ñoo boros rek leen ci njëriñ yi ngir bañ guddal tey ñaan soxna Aida Saliou dëgg-dëgg jëmi ba Bacco yàgg fi loolu tëwee